wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa radiyallahu an barzaqil maktumul gayb taajul aarifina wa imaamul awliyaai sayyiduna wa mawlaana Cheikh Ahmed Ibn Mouhamed Atijani Cherif radiyallahu taala anhu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 moom mi nga xam ni moo nu may nu fekke may nu nu tal ko dellu di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi nga xam ni moo di yonent bi sallallahu alayhi wa te nga xam ni yàlla def na bu ñuy jéggal ci yërmande bi mu def ci moom tax mu yabal ko mooy tax mu jéggal ñu moom yàlla waaye itam mu mel ni ni ñu koy waxee ni jaam dafa matadi te ki nga xam ni it moo mot mooy yàlla waaye ki mu wax ni nañu roy ci moom ñu bëggee doon ñi nga xam ni daañu daje yërmandeem walla ngërëmam moo di yonent bi sallallahu alayhi wa looloo tax yonent bi yàlla dogaloon zaman bu nekk rekk muy soññaate bi ñu ko laajee it coono bi mu am ci waaraate mu wax ni fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin waaw mu ni yàlla moo ni na ñuy fàttali ndax fàttali dana jëriñ boroom imaan boo xam ni imaan bu dëggu la su ko defee ci fàttali yooyu ñi ngi woon ci waxtaan bi passé li ko boromam waxoon moom yonent bi te mooy fa in tawalaw fa xul xasbiya allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim nga xam ni ci teggin boobu tey moo indi même ñi nga xam ni dañuy wut protection seen digganteeg seen boroom waaye di wut itam sécurité seen digganteeg seen boroom tax nu taamu zikr ba ñoo tuddee xasbunallahu wa ni'mal wakil moo tax yonent bi ci njàngaleem Umar déglu ko ba noppi mu daldi bàyyi ba yonent bi toog moom Umar mu ñëw ci moom bi Umar ñëwee mu ni ko dama dégg ngay jàngale waaw di soññaate ci wàllu njub waaw di soññaate ci wàllu volonté waaw waaye di soññaate it ci ragal yàlla ak wéetal yàlla waaw Umar ni ko bi ngay jàngale dama ci dégg benn côté boo xam ni zaman bu nekk yaa ngi koy tuddee mise en garde waaye mise en garde bi yépp mooy da ñu wax ni dañu am benn noon bu dangereux ba ñoo tuddee iblis ni ko ma dégg ngay wax ni fu ñu defaroo rekk noon boobu mën na wëlbatiku yàqal ñu fa waaw Umar ni ko nag ma bëggoon nga baaxee ñu nan la ni muccee ci noon boobu nu tuddee Iblis waaw yonent bi ni ko laaj nga benn question bu difficile pour nit ki mën ci trouver solution waaye nag mu ni ko difficileul pour nu mën ci trouver réponse mu ni ko ndax seytaane dañu koy indi rek ci ñaari phase benn bi yonent bi sallallahu alayhi wa leeral na ko ba ñu xam piège ya muy teg yépp beneen bi itam sufi yi leeral nañu ko ba ñu xam ki mu doon moom seytaane bi yonent bi leeral ba nga xam ni danañ ca xam piège ya muy teg yépp mooy keroog la mu jàngal Umar waaye bi sufi yi itam leeral ba ñu xam ki mu doon moom mooy sufi yi dañu wax ni seytaane dana dem ba nit réincarné ko waaw maanaam dina dem ba ngay gëstu iblis nee ñu dafay doon coone ci yow ndax di nga gis koo xam ni mënees na koo tuddee nit ngay ànd ak moom te mu amee jukko bi iblis amee moo tax yonent bi bi muy jàngal umat mu wax ko ni ko gis nga fu ngeen tollu di indi baatu a'uuzu billahi mina shaytaani rajim mu ni muslu bi ngeen di muslu ci yàlla wax ni yéen a ngi làqu ci moom pour mu musal leen ca ki nga xam ni dañ ko rëbb muy seytaana te jamono ju nekk ñuy wax ni nangeen di ko wax lu bare mooy wane ni daf leen di jege dana leen jege ci xol dana leen jege ci làmmiñ waaye bi gën a dangereux te yonent bi wax ko Umar mooy mu ni ko dina leen jege ci jukko waaw boobu lim ko doon jàngal mooy seytaana dana dem bay utiliser sa xol waaw di la bëggloo ñii di la bañloo ñii waaw dana dem it bay utilise sa làmmiñ waaw di la wax looloo xam ni waxuwul waaw waaye yonent bi ni bi gën a dangereux mu ni mooy dina demit ba utiliser seen jukko jël jukkoom def ko ci yéen te boobu mooy bi su fi indi ca deuxième phase ba muy ñu wax ni nit dina dem ba réincarné lanoo tuddee seytaane waaw su ko defee nag yonent bi wax Umar ni ko dafa am ci yoon yi nii jaare mu ni ko pour moy mën a moytu euh, pexe iblis mu ni ko bi jiitu mu ni ko mooy nit ki dafay am ngëm gu mot sëkk ci yàlla am yaqiin ci boromam ni moo ko bind moo ko sant ni na ko jaamu muy def la mu santaane bàyyi la mu tere ba noppi mu dem ba gis lanoo tuddee avancement spirituel ci boppam mu doyloo yoon boobu ndax seytaane bu la fekkee ci yoonu leer dina yebal nit ku ñëw pour wax la ni yoon boobu nga foog ni dafa leer dafa lëndëm waaw seytaane dana ko def yonent bee ko wax Umar ni ko du leen bàyyi mukk donte yéen a ngi julli ci jàkka ji yéen a ngi naafila yéen a ngi guddeeg bëccëg nekk ci euh, yoonu yàlla mu ni ko du tax seytaane bàyyi leen waaw mu ni ko fu leen ci fekk rek dana yebal koo xam ni dina fekk ni yéen a ngi ci leer yéen a ngi ci li yàlla bëgg kooku jaxase seen xel pour wax leen ni la ngeen nekk réer la wala yàlla bëgg ko waaye yonent bi ni Umar boo xoolee ca jamono jooju kooku di wax nag xam ni dootul nit ki mais iblis mu taxaw la rek nee na ca ngay xamee nooy doxeek moom waaw te loolu moom la sufi yi wax ni looy nekk danga nga ci am yaqiin waaw nee na loo nekk danga nga ci am yaqiin parce que boo ci amul yaqiin nee ñu seytaane la muy créer ci sa xel mooy wàllu dut waaw wàllu dut lay créer moo tax ñu ni li ngay nekk da koy xam waaw nit buy jaamu yàlla leer nekk ci moom dafay xam ni dafay jaamu yàlla leer moo nekk ci moom waaw waaye bokk na ci li ñuy wax ni doyadi mooy leer nekk ci yow nit ñëw ni la loolu du leer lëndëm la nga gëm ko kooku fa la doyadi yow loolu la yonent bi wax Umar mu ni ko moo tax ni ni muccee ci moom mu ni ko mooy faw nga am xaqul yaqiin ci ànd bi ngeen ànd ak man waaw ndax boobu bis bu ne ñi ngi kar sahaaba yi waaw kee gis leen ca koñ bële kee gis leen ca koñ bële waaw yéen a ngi ànd ak Muhammad waaw Muhammad dafa xëy fii la juddoo fii la màgge waaw ni yonent la ngeen topp ko mel ni maana euh, yonent bi dafa ñëw rek uniquement wax ni yonent la rek ñoom ñëpp ñu gëlëm xamuñu fu ñuy dem ñu ànd ak moom yonent bi ni Umar faw ngeen xam ni ànd bi ngeen di ànd ak man ci yaqin la tegu waaw waaw mu ni ko mooy dama leen indil ay kàddu yàlla waaw mu ni ko kàddu yàlla yi benn bu nekk ma wax leen la ca yàlla bëgg ngeen di ko jëf ma wax leen la ca yàlla tere ngeen di ko moytu waaw mu ni ko mooy sunu ànd mu ni ko ci noonu ngeen di daanee seytaane ndax tey su ñëwee ni leen Muhammad daf leen woore mu ni dangeen di xool ci Muhammad ci lan la leen woo waaw mu ni ko Muhammad daf leen woo ci yoonu yàlla daf leen woo ci jaamu yàlla daf leen woo ci jege yàlla daf leen woo ci ragal yàlla waaw mu ni ko moo tax bis bu Iblis taxawee wax leen Muhammad daf leen woo rek te xalaatu leen mu ni jàngatu leen te lam leen wooye nee na bu ngeen di dévier daf leen di ber waaw yonent bi wax ko Umar waaw beneen bi it yonent bi dénk Umar ni ko iblis boo bëggee du la mënal dara mu ni ko da moytu ay piège am waaw Umar ni ko yan mooy piège u iblis yonent bi di ko piège u iblis bokk na ca fekk place ba mu dominer ba noppi mu ni ngay dem ca place boobu di fa toog waaw kon da koy sore da koy sore wax ju am solo yonent bi ni Umar Iblis bu dominer place nee na la lay dimbali nee na mooy place boobu mu dominer nee na na ko sore xam nga baat boobu yonent bi waxoon Umar moo indi tey li ëpp ci ñi nga xam ni dañuy indi hadis yi di wax te nit ñi ba léegi comprendre ñu waxu yonent boobu lan la ci yonent bi jub xam nga yonent bi dafa wax. ni na moyetu benn place bëgg benn place waaw bi ñu ko laajee ni ko ban place la ñu war a moyetu mu ni marché waaw toujours nga dégg waaraatekat yi wax ñu ni ko ban place la ñu war a bëgg mu ni jàkk yi waaw waaye ñi xamul di xool ci cadre bi rek maanaa cadre marché ak cadre jàkk ji léegi kiy jaay ci marché nag yonent bi lim ci jublu mooy dafa ni comme jàkk yàlla dafa ni wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada kon jàkka ja ngay dem kenn du fa tudd lu dul yàlla ndax moomeelu yàlla la kooku soo fay dem dangay gën a jege yàlla ko comme jàkka ji moomeelu yàlla la ñu ni kenn du fa tudd lu dul yàlla kon booy dem ca jàkka ji dangay gën a jege yàlla waaw marché bi lu tax mu wax ko mooy boo fa demee da ngay gis ci naxante bi ci jaay beeg jënd bi naxante bi ca ña daje toog di jëw ca ña daje toog di wax histoire jàmbur ca ña nga xam ne ñi ngi seede ci loo xam ne amuñu ci benn xam-xam loolu di fa am ci wàllu confusion ci interpréter ay mbir ak li fay am ci wàllu yàqante ak li fay am ci wàllu naxante moo tax yonent bi ni woon kon na ngeen di wàññi seen tànk ci marché yi te di ko bareel ci jàkk yi waaye cadre bi taxu ko muy wax ndax nit mu nga ca marché di jaay te kenn ëpp ko iman waaw parce que ci li yoonam nekk rek lay dugg ci li neex yàlla rek lay dox te ma nga ca marché ba di jaay dafay liggéey waaw looloo tax li yonent bi doon jàngal Umar ci cadre boobu mooy daf ko bëggoon wax ni ko iblis fi mu bare tànk dañ koy moytu xam nga iblis fi mu bare tànk jàkk bokku ca waaw ndax jàkk ji suñ ne duñ fa wax lu dul waxi yàlla moomeelu yàlla la duñ fa tudd ku dul yàlla iblis daf kay daw waaw bu demee nag ba ca place boo xam ni leer na ko fii ñiy werante fii la ñuy werante ñiy carte fii la ñuy carte ñiy seede li ñu xamul fii la ñuy ñëw iblis dafay samp foofu basam moo tax yonent bi doon wax ni na ngeen di wàññi seen tànk ci marché yi mais du cadre marché bi la fay xew moo tax muy wax looloo tax Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani waxoon ni su demee ba jàkk ja ñu transformé ko ba mu mel ni marché ba nee na boobu moom marché ba kenn dootu leen mën a séparer waaw parce que su demee ba fa nga xam ni wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahadan la woon muy jàkk nee na ñu indi fa ay coow indi fa ay xuloo indi fa ay xeexoo indi fa werante nee na su boobaa ni ngay wàññee sa tànk ca marché ba da ngay wàññi sa tànk yi ci mbooloo moomu nga xam ni boo fa demee doo fa jël lu neex yàlla lu jar di bàyyi xel loolu la yonent bi wax Umar mu ni ko dangeen di éviter mu ni ko pour Iblis bañ leen dominer ngeen di dugg fi mu bokk waaw xam nga tey lu mel noonu am na lu ko tënk waaw parce que tey lu ko tënk mooy gis nañu euh, nouvelle technologie yi ni mu mel nouvelle technologie yi la mu mel xam nga euh, yaa ngi sa kër toog walla yaa ngi ci sa néeg toog waaye internet tijjeeku na tijjeeku boo xam ni bu la neexee nekk ci sa biir néeg nekk en même temps ca marché ba bu la neexee nekk sa biir néeg nekk en même temps ca boîte ba fu la neex nekk ndax il suffit nga cliquer rek pour bokk ci ñooñu waaw looloo tax boo gëmee yàlla boo gëmee yàlla sa imaan dëgër ki nga xam ni dafay yàq sa pas-pas walla di la wàññiloo sa volonté waroo di bare looy wax ak moom waaw waxuma nag di di sax bokk ak moom euh, jotaay yu tax ñuy wax waaye waroo di bare looy wax ak moom waaw yonent bi dafa ni Umar kiy sàmm imaanam nee na da ngay fexe ba seet ki la ciy dimbali ki nga xam ni chaque fois mi ngi lay dimbali ci sa volonté chaque fois mi ngi lay dimbali ci sa pas-pas chaque fois mi ngi lay dimbali noo gënee jege yàlla nee na booy wut xarit tànnal kooku xarit booy wut koy waxtaanal waxtaanal ak kooku waaw ndax daf lay yokk waaw mu ni ko ki nga xam ne nag foo toll daf lay décourager ci diine foo tollu daf lay gën a lëndëmal ci wàllu diine foo toll daf lay gën a soreel yàlla nee na soreel kooku waaw ba sori bérébam waaw xam nga loolu mooy indi su ñu waxee ni boroom imaan nga ci imaan bi nga ànd ceeg ay borom volonté ñoo xam ne gëm nañu yàlla am nañu pas-pas booy adhéré ci ay groupe dangay ngay ci groupe bu ñi nga xam ni yéen a bokk pas-pas waaw waaye boo demee it fekk groupe goo xam ni iblis a ko dominé nga dugg ci walla nga dugal ci sa numéro des ceeg ñoom suñu waxee nag nga ni da ngay werante bu la iblis yàqee yaa tooñ sa bopp ndax mooy wax ji yonent bi ni woon di leen néewal seen tànk yi ca marché ba te koy bareel ci jàkka yi waaw wax naa ni jubluwu ci marché la fay xew moo tax mu wax loolu waaw li fay xew moo tax yonent bi ni comme da ngeen di moytu iblis da ngeen di moytu ay place waaw ñu laaj ko mu ni place yi iblis gën a bare tànk mooy place yi bare werante yi bare xuloo yi bare yàqante der yi bare wax lu la wóorul yonent bi nee na foo ñëwee iblis bokk na ca ña toog ca place boobu te yàlla jaayee na ko pouvoir boo xam ni pouvoir mystique mën na détruire iman waaw yàlla jaayee na ko pouvoir mystique boo xam ni mën na détruire iman waaw ndax day créer doute ci yow te ki du nekk ci moom euh, kooku jàmm yàllaam dootuñu ko seede waaw jaamu yàllaam dootuñu ko seede mooy ki xamul maanaam di jaxase waaw nekk gëm yonent bi iblis xamal la ah na nga def ndànk nangam nangam. ngay jeune mu def sa xel ni yow kat euh, li la fi dese war na ma téeméeri at danga nga teel a dugg ci jàmm yàlla waaye dese nga te kat boo xalaatee tuuti bis bu ne nga dégg ndaw bu soogaa judd di génn àdduna waaw bis boo demee armée li gis ñoo tollool at nga liir ko ci tableau yi ñu tëdd faw waaw mais gis nga iblis dina toll ci foo xam ni dina dem ba def sa xol ni la yow mii kat dese na la fi at yu bare yoo xam ni mën nga sax dabaatal waaw nii nga def dafa teel jaru ko woon mën nga bàyyi ba ci kanam gis nga dut boobu muy indi loolu mooy liy sonal doomu aadama loolu moo tax yonent bi wax ko Umar waaye itam Umar jàng ca ni kon ndekete ña mu war a wéetoo ak ñoom ña muy war di bokk ak ñoom jotaay mu jàng ca ni kon kenn ku nekk ci ñooñu mooy ñiy dolli pas-pasam si digganteem ak yàlla waaye di dolli volontéem ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu àndal waaw Umar wax yonent bi ni ko ñun dund nañ ko waaw ni ko ñun jaar nañu ci réer waaw ñu gëm loolu nu ne waaw waaye mu ni ko bi ñu ñëwee ba dugg ci diinal islaam dañu yëg ni ndekete yi ñu dugg yi ñu dugal ak li ñu daloon yépp réer la woon waaw mu ni ko moo tax nag ka ñu doon réeral la ñu bëgg nga jàngal ñu ko mu doon yonent bi ne la looloo tax ngeen war a moytu pexe seytaane waaw mu ne ko dafay yàqal doomu aadama beneen bi gën a dangereux nag mooy bi ma wax ni mooy deuxième phase bi mooy bi sufi yi wax sufi yi dañu ni seytaane balaa dooleem dëgg-dëgg di feeñ nee na mu réincarné wu ci nit waaw mooy nga natt nit mu di la xelal nga déglu lam lay xelal yépp nga xam ni xelu seytaane la nga natt nit nga jiital ko mu jox la ay conseil nga xam ni conseil yam lay jox yépp conseil yu seytaane la nga topp nit bu di la diriger nga xam ni fa la jëme yépp ci yoonu seytaane la waaw loolu la sufi yi ni lu jar di moytul waaw léegi nag sufi yi ni pour nga moytu ko nee na foog nga xàmme jukko jukko ki nga jiital ci sa bu dee ku iñaan nee ñu kiñaan seytaane moo koy saxal ci doomu aadama pour du dañ gis nga ki iñaan mënul wax ci nit lu baax waaw parce que ki iñaan ci xelam li ciy nekk mooy moom daal gannaaw moom bu gënee ba noppi keneen ku ñëw baaxatoo waaw waaw lu ko nit ëppalee rek mu mer waaw moo tax ñu ni boo amee nag euh, conseiller boo xam ni ku iñaan la na la leer ni boo ko laajee xalaat it na nga xam ni du wax ci nit lu baax waaw ndax xolam moo ko tooñ waaw beneen bi ñu ni boo amee njiit bu rëy na nga xam ni koo yëkkatee ti dana suufeel kooku yëkkati bopp waaw kon da koy jàng laata ngay ñëw waaw muy kilifa gu rëy ku bëgg rëy rëylu waaw kooku koo ne ah diw de moom euh, yàlla may na ko diw de moom ni mu ne ah diw de xam nga ni ñun ñoo ko sut ndax fa mu nekk nangam nangam waaw ñu ni nga xam ni seytaane wax ci ma waaw su boobaa ñu ni soo jàngee kooku li lay dimbali yow en tant que jullit bi mooy li yonent bi conseil Umar mooy nee na ko nit. su nekkee ci digganteem ak yàlla di jaamu yàlla xam na ko waaw maanaam nit doful nit buy jaamu yàlla xam na ni mi ngi jaamu yàlla su jaamuwul yàlla it xam na ni jaamuwul yàlla waaw maanaam sawar dong mooy tax nga dem ci nit naan ko yow de fu mu ne jaamuwoo yàlla wala yow yaa ngi jaam kiy jaamu yàlla xam na ko waaw gis nga ki nga xam ne bu waxtu julli jotee mu julli xam na ni moom mi kat mi ngi jàpp ba set di julli xam na ni moom bu amee ay jukko yu ñaaw mi ngi fexe jukko yooyu dañ pour mu am jukko yu rafet waaw kon kooku xam na ni moom mi ngi ci yoonu yàlla waaw ki nga xam ni xam na ni jaamu yàllaam ba gistal la kooku moom bu ko nit ñi gisee dana julli bu nit ñi gisul mu toog jàpp ñàmburam waaw kooku xam na ko ki nga xam ni it xam na ni maanaam dafay julli nii rek waaye amee na jukko yu mu war a dindi ci moom te muy jukko yu ñaaw te jéemu ci dindi ko kooku xam na ko moo tax maa maanaam ñëw ci nit naan ko nii la mel ak nàngam nit xam na ci lu mu ne lan la waaw waaw mais nag iblis moo koy def waaw yonent bi wax na ko Umar ni ko nag iblis bu leen gisee ngeen di jaamu yàlla bu leen defee ni iblis dafay décourager bàyyi leen déedéet bés bu nekk dana ñëw ci seen wet mu ni ko jéem a xool lan lay jéem a utiliser pour génne leen ci yoonu siraatal mustaqim bi ngeen nekk waaw mu ne ko bés bu nekk nag. bés bu nekk mu ni dina ñëw jéem xool yoonu siraatal mustaqim bi ngeen nekk mu seet nan lay def ba génnee leen ci waaw nee na léeg dina ñëw ci xel waaw gëm loo la lii ngay def euh, perte de temps rek la jaru ko waaw gëm loo ni la dese nga fi lu bare waaw walla mu yabal nit gëm loo nit kooku ni ko soo ñëwee rek na nga ànd ak diw waaw wax ko ni ko nañu dem wuti tàngam ak nangam moo gën mu toog fii di jàmm yàlla su ko defee nag yooyu boo ko dégloo nga jékki saa ni sama benn xaritama xelal wala benn kilifaama xelal te xamoo ndax ki lay xelal xelu iblis la utilise loolu mooy danger bi loolu mooy danger bi moo tax yonent bi ni Umar jullit dafay seede boppam waaw yonent bi ni ko jullit dafay seede boppam maanaam jullit dafay xam ni jullit la lii mooy yoonu siraatal mustaqim ci lii la teg tànkam waaw loolu mooy li ne mu ni ko jullit dafay seede boppam mu xam ni lii mooy yoonu siratal mustaqim ci lii la teg tànkam waaw mu doyloo loolu waaw mu ni ko mu doyloo loolu te gis nga doyloo boobu soo ko nattee dafay dellu si ci danger bi nga xam ni moo taxoon yonent bi di wax ni na ngeen di moytu piège u iblis ndax dafa défier woon yàlla moom iblis mooy daf ko waxoon ni ko dinaa toog ci buntu siraatal mustaqim képp ku ma gis nga ci jëm rek danaa fexe ba jéem la dévier pour nga jaar ci yoon boo xam ni merub yàlla ngay dajal ëllëg waaw mu ni ko moo tax ci liggéey boobu la nekk waaw mu ci liggéey boobu la nekk looloo tax nag euh, yàlla di nattu doomu aadama leele nga gis euh, nit koo xam ni mu ngi jàmm yàlla nit koo xam ni mu ngi jub nit koo xam ni mu ngi nekk ci kurusam de zikr waaye nga gis koo xam ni yaa ko tane téeméeri junne yoon ci diine ma nga doye di ba talul sax yor kurusam di wér talul sax julli ñaari ràkk xëy rek génn la ci yoon boobu waaw xëy rek génn la ci yoon boobu waaw te kat ci ay wax la lu ciy génn ñëw yow kat nangam nangam yow kat nii nii waaw nga dem bàyyi sa xel utiliser xelu kooku waaw te kooku fa lu mot di yam fala mottadi am yonent bi moo ko wax Umar nee na ko jullit day am yaqiin xam nga yàlla li mu bëgg du ki ko gëm rek mooy ki ko wóolu waaw te yàlla bare na ci kaw suuf ñu wax ni gëm nañ ko mais kóolute gi seen digganteeg moom moo des ñu bari gëm nañ ko mais kóolute gee des moo tax théorie yu bari ñun lay indil ba nga weddi yàlla boo ko seetee ba ci biir ay théorie yu tegul fenn la waaw tax da gis nit ñëw indil la xam-xam ci wàllu philosophie walla ci leneen ñëw ni la waaw ku dee jeex na mënootoo dellu si nangam nangam ndax gisoo kenn ñëwaat wax li fa xew mooy boo deewee rek amul àtte ëllëg nga gëm ko te alxuraan mi ngi fi di la wax ni daanu dekkil ñëpp ba dekkilaale même seen catuwee yi ñu daggoon sànni ko waaw léegi nit ñëw rek ni la boo deewee yowmal xiyaam amul gis nga kenn ñëwaatul sax di la wax mooy wane ni loolu zéro la nga gëm ko mooy wane ni kooku iblis moo ko yabal waaye yow danga da waaw ndax yow am nga boo xam ni xaqul yaqin la muy alxuraan bu dindi waxu kee yëpp sànni waaw ah, te téere boobu nga war a utiliser téere boobu nga war a utiliser mais nit mën na nekk ci lumière nekk ci nekk nekk ci yoonu yàlla ñu ñëw rek ni la déedéet li nga nekk ci jinne la rek nga ni déedéet ma ni jinne li nga ko sant lan la sant wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni yàlla dafa ni binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu di ma jàmm waaw waaw te léegi nga dégg nit ni noo man dama am jinne ci laa tënku sax ba xam ni jinne bari gis nga bari na ñuy wax dama am jinne boo amee jinne dëgg la am nay jinne jullit waaye gis nga bari na ñu am jinne iblis nga gën a jege sax ka yàlla waaw ndax jinne bari na mu wax la quatre-vingt-dix wax boo moyetul quatre-vingt-cinq moo cay dëkk waaw waaw waaw ki ñu ko xam nag laa xam nga réew mi nag moom ku jug rek naan jinne jinne rek xam sax lu jinne waaw jinne li ñu ko sant mooy mu dem ca jàkk ji julli ji jaamu yàlla alquran la du sama wax wa ma xalaqtul jinna wal illa li yaabuduni yàlla moo ni binduma nit ak jinne lu dul ñoom ñaar ñëpp ñu taxaw farlu di ma jaamu loolu laa leen sant waaw waaye neen santuma leen benn njabar wala benn captage wala lu mënta doon santuma leen loolu la yàlla captage la léegi moom la ñu utiliser di naxe xamoo <laughs> léegi yooyu la ñu utiliser léegi ci internet yi di naxe da ngay jékki saa rek dégg ku naan dama captage jinne foo ko capté en portable nga capté wala ay wax la yooyu ay wax la il faut jullit yi yeewu waaw ay naxeate capté leen ci lan waaw foo leen capté waaw mindeef yoo xam ne ñoo la ëpp doole yàlla bind leen dugal leen ci monde baatin téeméeri junne ñu yilif la ba di la def loo musiba moo gën a yomb yow nga dem naan danga leen capté ci benn whatsapp wala benn portable waaw su ko defee nag nit ñi di utiliser loolu ba fàtte seen diine waaw moo tax nit day yeewu te am xel waaw waaw nit dafa yeewu te am xel yonent bi loolu la wax Umar nee na ko jullit day xam siraatal mustaqim mu tegu ci siraatal mustaqim ba xam ni moom kat mi ngi ci li neex yàlla yàlla na ñu yàlla xiir ci boobu yoon ñu nekk ci abadan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.